mbokki internetu seen politique 221 maa ngi leen di bu baax a baax di leen ziar di rafetlu ànd bi nga xamante ni yeneen koy ànd ak ñun ci li nga xamante ni indil nañ leen ko muy leeral njariñ leeral njariñ nag la yaakaar naa ni gars yi ñu ngi koy bëgg a xam ndax lu mu ci mënti doon rek doomu aadama bi war ko mën a yittewoo dañu koy jël benn par benn di ko faram-fàcce ci ay émission yoo xamante ni lépp luñ ci jublu mooy euh, bëgg mu gën a leer ci yéen waaye tam bëgg mu gën a jàppandal ci yéen ba képp koo xamante ni rek euh, am nga lu la jaaxal da ngay daal di dugg euh, ci seen politique 221 xool lañ fa digle ci sarax waaye xool lañ fa digle itam ci wàllu ñaan ak wàllu noob ak wàllu rab ak wàllu yépp incha allah ko fa fekk ci kàttanu yàlla sama gan nag du ma wax ne gan la ndax saa su ne damay bëgg di ànd ak moom ci fii ci leeral njariñ muy Serigne eh, Modou Touré Serigne Modou Touré eh, nak yaakaar na ni mbokk yi mom nenañ ko chapeau yëkkati nañ ko ca kaw tabarkàlla macha allah yàlla na ko yàlla lafal cat dañ koy bàyyi rek mu nuyoo laataa ñuy xuus ci waxtaan wi cheikh bi ziar na la. waaw soxna Mbaye ngi lay ziar baax baax. di wax eh, alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh di jital ci nuyo bi cheikh Mouhamadul Muntaxal bashir di ko ñaanal fan wu gudd ak wér ba naa am ci digel ko maamam suñ borom sottil ko. di ko ñaanal booleem xalifa suñ borom may la wér ak kàttan ba naa li nga am ci liggéeyal ko umma lislaam bi suñ borom sotti lépp ñi nga xam ne dañoo tawat ak fu ñu mën a nekk ci àdduna yàlla na leen suñ borom yëkkateeg jàmm ñi nga xam ne dañoo nekk ci xat-xat ak fu mën di doon ci àdduna yàlla na borom oyofal di ñaanal ñëpp jàmm di la wax wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu euh, jërëjëf ñu koy jaajëfal ci nuyoo boobu yaakaar naa ni cheikh bi tey li li ñu indi nar na am solo waaye itam yaakaar naa ni itam mbokk yëpp ngi lay félicité ci nii nga xamante ni moom nga indi initiative bu bees ci wàllu ñaan di ko jël tomb par tomb jàngoro par jàngoro jafe-jafe par jafe-jafe ñu di ko def ay plateau di ko waxtaane di wax ne nag ñàkkul ne mbokk yoo xamante ni itam ñu ngi ñu seetaan bëgg nañ ñu dalal leen ci suñu kër gi dalal goo xamante ni yaakaar naa ni gu mucc ayib lay doon bu jàppandal ci yenn lay doon donc woo leen ma rek ci 77 534 91 85 su ko defee ma indi leen ci sama biir kër gi ñu àndandoo rek euh, feeñal njariñ ci anam bi ngeen ko bëggee yéen ñi nga xamante lay dalal cheikh bi nag moom dama koy bëgg moom saa su ne ma ko dalal ben par benn ñu di ko def ay tomb waxtaan waaye keneen ku ma mënti jël itam loo lamboo lu ne rek danañ ko jël teg ko ci taabal ji euh, sëñ Modou euh, yaakaar naa ni tey jii wàllu rab la bëgg waxtaanee rab nekk loo xamante torop nekk loo xamante ni euh, lu lu jafee dindi la nekk loo xamante ni itam anam bu ne dinañ ko ko déggee euh, sëñ ma du cosaanal diw dafa am rab wala rab daf ko dugg cosaan loolu fan la jógee. waaw soxna waaw soxna Mbaye hmm. comme ni nga ko waxee rek euh, maanaam li nga xam ne moom la ñuy ñëw di toog di ko waxtaane ci ay bis bu ne. Hmm. dafa am njariñ ndax dina tax dinañ mën a. Eh, yaatal xam-xam bi bam leer ci bop nit ki ba mu xam bu jugge di dem ci sëriñ nan la wara deme ci sëriñ waye dina xam kat ne ah nit kat nek dina am façon gàllankoor yi te liyee ko koy tek xena na bu njëkk daawuñu am jot googu daan ko maram faram-fàccee mo wara legi ñuy jël ben bu ne rek ñukoy def émission spéciale di ci waxtaan ngir mu gëna leer nit ñi ba nit ñi seen bop gëna a ko di wax ne daal liñ ci bëgg rek moy leeral te lépp luñ ci wax mu doon jariñ yalla ñu ko suñu borom defal nga ñëw nag laaj loo xam ne mën naa laa wax ne la bokk na ci wàllum ñaan li ci gën a yéeme. Mm. mooy wàllum rab. Mm. li ci gën a tamit naqaree saafaral doomu aadama. Mm-hmm. ndax rab nag na nga xam ne. Mm. rabu cosaan dafa am. rabu cosaan buñ ko waxee mooy li nga xam ne danga gis benn famille boo xam ne. am na weer woo xam ne bu jotee wala at boo xam ne bu jotee wala bis boo xam ne bu jotee danañ dajale mbokk yi ñëpp famille bi ñëpp ñu dem am lu leen defal mm-hmm. am na sax ñu koy tuddee ay ndëpp ak yëpp mm-hmm. dañ koy wax rabu rabu cosaan am ci beneen rab boo xam ne nag nit dina judd ci benn famille famille bi kenn jekk-jekk rek ànd ceeg loo xam ne yeneen ci doom yi wala yeneen ci famille bi dara jotu leen amul benn gàllankoor waaye nga gis ci kenn rek mu jekk-jekk di daanu wala toll ci sëy du mën a am jëkkër mm. wala sax nga gis ko mu nekk magum jëm ba pare di tuur ndox mm. wala maanaam di def yoo xam ne daal famille bi ba famille daj moom rek moo ko ci moo ko ciy def ñi bokkal ñëpp amuñ benn problème mm. loolu tamit dina doon rab nga xam ne boo dee xool day mel ne moom daf koo dal topp di ko yàqal ñeneen ñi nag seen rab moom defu leen dara nga xam ne kon rab ñaari anam yooyu yëpp dinañ ko ciy bàyyi xel mooy koo xam ne dafa judd ci famille boo xam ne dañ leen dañ daan yëngu ci walum ñaan wala yoroni xambu dan am luñ daan def sak année wala sak weer loolu ñew top njabot gi wala mu doon ko xam dafa juddu rek manam rabam xirtal ko diko ko mu bané rabam xirtal diko ko nak wone wun ne soxna Mbayang de mom amul rab señ Modou am na rab dedet manam rab yalla ñepp lako bindé bindee muy ànd ak ñom manam mm-hmm. waaye nak da ci am ño xam seen rab daf leen am ci ñoo xam ne seen rab yàqalu leen mm-hmm. moo tax yenn saa yi damay ruus lool bu ma déggee koo xam ne day wuyoo sëriñ mm-hmm. wala ñu ne xam na ci dara mu toog mm-hmm. naan ku ma indil nit ku am rab mën naa mën naa koo reyal rab bi wala mën naa ko defal rab bi nàngam damay ruus lool ndax damay xam ne mi ngi wax loo xam ne maîtriser wu ko. Mm-hmm, mm-hmm. ndax rab amul benn doomu aadama boo xam ne. Mm. war naa mën a taxaw naan nit mën naa laa dindil sa rab. Mm. rab yàlla moo ko bindee doomu aadama muy ànd ak moom. te doonul loo xam ne danga koy làmb di ko daj. yaa ngi dégg doonul looy làmb di ko daj waaye nag dina am jëf yum jëf ak yow ba nga xam ne mm-hmm. yow sa jëmmi bopp di nga xam ne yow mi am nga loo àndal loo xam ne gisoo ko waaye mu ngi lay gàllankoor noonu tamit lay amee ci ay nit ñoo xam ne soo toogoon ak ñoom naa leen rab sax ay ree da leen di jàpp ndax ñoom amuñ lenn luñ sentir loo xam ne rab bi mi ngi leen koy yàqal donc boo leen ko waxee dañ naan la ah loolu ça n'existe pas mm-hmm. fekk lu la mm-hmm. mooy dafa am ñumi gàllankoor am ñum dul gàllankoor mm-hmm. léegi beneen bi tamit mooy euh, ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllum ñaan nga xam ne seeni maam daanañ ñaan wala seeni waajur ñu ci bëree bëree bëri nag boo dee xool ñu bëree bari li leen di gàllankoor ci rab ci foofu lay jóge ndax rab moo doon loo xam ne nit saa bu ñëwee nga ko ciy ñaanal soo ko commencé jox sa garab rek da ngay gis ne automatiquement am na luy jóge ci moom di ñëw ci yow di la laal d'accord maanaam nga xam ne yenn saa yi sax nga ciy ñaanal nit mu tëj sa buntu wërsëg wala mu xirtal la sa yaram diis wala nga feebar ba dootoo ko mën a àggaleel ñaan ya ngir wan la rek pour nga bañ cee bañ cee dugg nga xam ne kon rab daal lu lu lu am la xëy na buñ demee ba ci biir boo ma boo ma boo ci yenn posé yeneen question des na la ko gën a leeral que nit ki bu koy sentir ak bu ko bu koy yàq ak yooyu yëpp dinañ la ko gën a leeral incha allah foofu laa jëmoon mu mel ne rabu cosaan ni nga ko waxee famille bi mën nañu dajaloo am lu ñuy defal rab ba di di ko neexale mm-hmm. léeg itam nit ki dem ba ci jëmmi jamono mm-hmm. xale yi sàggane ko rab woowu dellu siwaat mm-hmm. am lu mu leen def ndax kii di Modou Touré ci lu jëm ci wàllu rabu cosaan ndax mën na cee dimbali nit ba mu ànd ak dal sans pour autant ñu ndëppal ko wala ñu tuural ko parce que am na ñu koy bañ waaw waaw man moom euh, damay wax ne nit ki saa bu ñëwee ci man di ñaanloo ci wàllum rab ma xool ko ba xam ne rab la bu boobaa dina yomb lool pour ma ñaanal ko ci benn côté waaye nag dina jafe ci benn côté ma ñaanal ko ci ndax danaa la teg euh, sart yi nga xam ne nit lu ma jege jege jege jege bu ñëwoon di ma ci ñaanlu sart ya ma koy teg yow mi nga xam ne ab jaamur nga ci man boo ñëwee tamit sart yooyu laa lay teg ndax nag dañ ne sama bopp ma la gënal du bañ naa la olof a ko wax te nag wàllum rab ma leeral la ci lenn képp koo xam ne yaa ngi ci yëngu di ci ñaan mm. am na noo ciy doxe mm. jàppal ne sax njaboot moom jàppal ne yaa ngi leen lor dana bari ñoo xam ne danañ ami gàllankoor te yow yaa leen koy teg mm. nga xam ne kon sarax ah, nga xam ne kon ah, maanaam rab mm-hmm. dafa am lum laaj bala nga cee ñaanal nit ki ak boo muy rab bu mu ci man di doon dafa am lum laaj am na sarax yu mu laaj yoo xam ne faw da cee war a génn balaa nga koo jox benn ñaan d'accord ak ginnaaw boo ko joxee ñaan yi ba pare yi nga xam ne dafay tëdd di gént guddi gi mu koy indil rabam di ko tegal mhm. ngir mu neexalee ko yooyu tamit dafa war a génn nga xam ne kon rab man su ma xasee ba xool rek ba xam ban fan nga ci féete rek dina yomb ma ñaanal la ci ginnaaw bu ma la tegee ci yoon wi ma la bëgg a teg moo xam bi nga xam ne rabu cosaan la wala bi nga xam ne da ngaa jekk-jekk rek gis ne ah, rabam mi ngi lay yàqal d'accord mhm. euh, sëñ ma fàttali leen rek euh, mi ngi fii ci euh, Yoff Apecsy Euh, ci wetu maraton téléphone bi 70 78 euh, la 123 06 56 78 123 06 56 des fois da ngay gis kuy faj rab teg ko ñu di ko filme ci koñ ñëpp ñëw wala ay mbokkam ñëw wala ci biir ëtt bi ñu am na ñu bari ñuy faju ak mbokkam yi ko àndal di ko jël di téye muy wax ñu di la wis liñ lay wis doo ko bàyyi doo génn ci moom tuddal yàlla nangam sàngam ndax loolu fajum rab la. waaw xëy na li may faral di wax rek xam-xam toll na foo xam ne. Mm-hmm. dañ koo war a leeral nit ñi di ci di ci ginneeku bu baax a baax. Mm-hmm. di xam fi ñu teg seen tànk. Mm-hmm. ndax boo gisee euh, nit ñi toujours sëriñ boo mën a tudd ñu teg lu ñaaw ci ginnaawam. wala ñu ne ñëpp a yam mhm. mooy dafa am yenn ci yoo xam ne ñenn ci sëriñ si dañ koy def te duñ génn leeral ko. d'accord buñ ko doon leeral nag di ko dénoncer. Mhm. dina waral nit ñi mën a yeewu xam ñi ñi xam ak ñi xamut ñiy tappale ak ñi nekk ci dëgg. lu mel ne loolu nga wax noonu bëri nañu koy faral di def. Mhm. waaye nag euh, ma wax la foofu benn secret boo xam ne. nga xam ko te xam naa ne xëy na xamoo ko. moy eh, yeen say ñu genn nit mu ne day fajj ay rap ñuy yu xoka di wax ma japp diw ma def nangam yoyu dafa am benn sunguf bo xamne ne mm. wala xamunu nu ma la ko ndax bëgguma tudd tour bi ndax amna na ko am bu ko déggé automatiquement da koy jaram mu dem wuti ko moom ko def waaye daal am na ci benn mbir bo xamne ne So boyal fourné bam bam bam boy nga def ko ca soko ci défé boko téggé ci benn espace wala ci benn néeg bo xam ne kenn nekku fa ki nga xam ne yow moom nga bëgg muy wax soo ko fa dugalee maanaam boo ko fa bàyyee tuuti day mel ne ku màndi te loolu muy saxaar soosu di ko dugg mooy la nga def ca xale ba mu koy dugg mooy waral mën na koo waxloo ba waxloo ko lu mu xamut waaye du caagi ne dafa am xam-xam boo boo xam ne moo tax muy wax wala dara déedéet mm-hmm. maanaam la ngay def ca xal ya yow mi ko ciy def sax boo fa toogoon ab diir mën ngaa wax ni ni ki ngay ñaanal di waxee waaye nag boo dee xool ñi koy def dañuy am espace bu ñuy réserver boo xam ne ñoom duñ fa dugg dañ fay teg xal rek yow mi nga xam ne yow lañ bëgg nga wax boo ñëwee ñu suur la fa ba nga suuru rek ñu gaaw génne la bu ko defee bàyyi la di la sotti ndox ngay wax li ngay wax yëpp doo ci xam dara doo ci xam dara. te luñ la dañ euh, liñ lay laaj yëpp ngay wax doo ci xam dara nee naa la da ngay màndi maanaam sëriñ bi nga xam ne moom moo moo moo lay def defal loolu sax. xal ya bu ci suuroo woon tuuti mën naa continuer di wax. nga xam ne loolu benn la ci système boobu. ñaareel bi tamit mooy di nga gis nit koo xam ne dafay wax ak nit mu ne ko mën naa laa defal loolu mooy mën naa ñëw daanu daanulu. nangam ak nangam ak nangam dafay faral di am. d'accord d'accord nga fay nit mu daanul la. dafay am te boo xoolee ay jamono bëri na ñu daan génn daan ne sëriñ jiw de dafa maa fayoon ma ko doon defal nangam ginnaaw bi ñu awee amee problème moo tax man damay wax ne xam-xam. soo yéree lu wér jéem a la dox ci dëgg bul nag kenn ndax ka ngay combinal yàgg yàgg mën na génn weer la. surtout ci waaw te olof Ndiaye da ne yow la yow la fa mu àgg du man du man àggu fa dëgg la. moo tax nag. sëriñ da ngaa war a fexe ba lépp looy def nga teg ko ci xam-xam boo ko tegee ci xam-xam rek foo mën a nekk doo tiit. doo jaaxle doo wéet waaye boo ko dugalee ci leneen rek ay ay nit ñooy jël di commune ak ñoom rek hmm. bis dana ñëw nga jël sa loxo dóor ci suuf ne su ma yegoon duma ma commune kenn moo tax nag xeetu affaire rab ñiy daanu loolu laa la ci mën a leeral waaye nga xam ne daal daanu gi kon nekkul lu naturel hmm. ok en tout cas mën na nekk mise en scène mise en scène wala mu nekk loo xamante ni comme ni mu ko waxee lu euh, luñ lay suur la ba mu def la noonu hmm. euh, muy mbir mu doy waar waaye nag loolu amul ci këram bu ñu demee ba ci jeexitalu émission bi daanaka deux questions moo ñu dese dinañ ci wax ak moom ci nan lay fajee rab ak ndax durée bi muy jël ak yooyu loolu ci jeexital bi la waaye yeggaguñu fa euh, sëñ Modou rab am na noo xamante ni moom la mën a yàqalee nit mm-hmm. nga limal ma ci li nga ki nga xamante ne dangay jàkkaarloog moom xoolal ko wala mu dis la soxla sàngam nga xool ko xam ne rab moo ko teg loolu yooyu yan xeetu jafe-jafe la waaw bari na xam naa buñ toogee di lim rab nan la mën a yàqalee doomu aadama xam naa émission buñ ñu rek ci rab lay doon kon ndax da bari na bari go xam foko tak wess nak wees dina la ci limal yenn yo nit ki tok di la déglu automatiquement dina gis na seigne Modou mi de limi wax ko ci sama bop kon nanguna ni limi wax xam-xam la ndax man damay wax ne limay wax duma ko forcer kenn ne la ding ko gëm mm. waaye nak dama lay wax lo ne ci nat sa bop gis ci sa bop wala nga nat ci kenen gis ci sa bop mm-hmm. bu boba, nak nga gëm ne ah seigne Modou kat limi wax ni kon amna fum ko tek ndax man dama lay wax ne la dama yaro ci képar go xamné dama beri won ay mam yo xamne dañ dan yëngu ci walum ñaan mm-hmm. ndax man yalla dafa dogal bi may jang alquran dama teel mëna bind lool machallah sama loxo dafa télo na rafet amna sama mam bo xamne lu bëree bëri momako jangal bu ma masaan di ñew ci mom daf ma dan wax ne ma euh, bo bindé ku ko gis rek dina xamne yow see sëtub nangam nga ndax yow kat sa sa mam dafa mënon bind lool ba paré timi dafa nekkon nituk alquran machallah a ah, lolé sante ci yalla rek bam ñu bolé ci ci famille bobu mm-hmm. waaw léegi beneen bi mooy lu mel ne rab nit ki nga xam ne dina koy indil comme gàllankoor maanaam mën ngaa nekk góor wala toll ci am soxna am xaalis am lépp. Mhm. waaye jigéen joo dem ci moom mu gàntal la. wala sax sa xel du nekk sax ci sëy buñ la waxee rek nga ne ah teel na ba si kanam nangam fekk dafay am loo xam ne moo ànd ak yow bëggul nga jege jigéen. muy benn loolu nag noonu la koy defee góor noonu la koy defee jigéen. ndax gis nga jigéen ñoo xam ne macha allah mel nañ ni ñu war a mel. Mm-hmm. mais ba léegi mu ñoo gis benn góor bu ñëw wax leen dama laa bëgg. wala kuñ gis bu ngoonee kooko dem bàyyi leen. beneen bi tamit mooy di nga nekk ci néegu sëy. di mm-hmm. sëy ak sa borom kër. Mm-hmm. doo am doom. du sa jëkkër feebaroo mais rab moo koy def ni mu koy defee nag mooy dinaa la ci jox benn exemple bu gàtt rek boo xam ne kim ki mi dal bu ko bu lii ma koy wax nii dina ko xam mm-hmm. mooy di nga nekk ne dañoo jël lu diis teg ko sa ndigg sa digg ginnaaw gi bu ko defee dafay fekk ne rab mooy jël loxoom dës ko sa ginnaaw gi bu ko defee la nga jotoon a sëy yëpp mu yàq ko mooy waral doo ci mën a jëlee ëmb wala tey nga nekk nit koo xam ne tamit da ngay gis ne nit ñi. Mhm. toujours dañuy jékki-jékki di la bàyyi di la mere te doo leen def dara. bañ la doo bañ la def la noon ba ci sax say mbokk yi nga xam ne ñoo la gën a jege ci deret dañ lay bañ te ñoom it doo leen def dara. wala nga doon nit koo xam ne. maanaam da ngay tëdd guddi di gént gént yoo xam ne benn bu dee góor wala jigéen man ngay gént di sëyeeg koo xam ne ku la jege la lool ci oh. deret ba nga xam ne mënoo ko mënoo sëyeeg moom wala maanaam nga doon koo xam ne jigéen sa borom kër nekk ak yow ngay tuur deret rek toujours di di gis règle toujours di gis règle toujours di gis règle wala nga nekk nit koo xam ne bu guddi jotee da ngay gént gént yoo xam ne toujours dangay ngay tiit ci ay nelaw parce que deret lay na lay ñëwee wala maanaam ngay gént lu mel ne ay giléem wala jaan wala lu yor melaw nit mhm. nga xam ne daal kon bari na bari goo xam ne foo ko takk weesu na ko waaye am nay màndarga yoo xam ne daal nit ki bu ko dee dund faaw mu xam ne moom mii maanaam ànd naag àndandoo boo xam ne mi ngi koy gàllankoor ci la bokk bari na ci ñoo xam ne ñàkk na ñoo am doom du feebar du ci seen jëkkër mais ci ñoom la seen wàllum rawxaan la am na ci ñoo xam ne sax buñ sëyee saa buñ jugee ndox bi day tuuru saa buñ sëyee ak seen borom kër bu ñu génnee ndox bi day tuuru nga xam ne kon bari na lu muy lu muy lu muy lu muy sabab waaye ki nga xam ne daal xëy na bëgg na ci am lu leer ndax ni ma koy waxee lépp xajut ci émission bi ki nga xam ne daal rab mi ngi koy yàqal mm-hmm. mu bëgg cee xam lu bari buñ déggante dees na ko faram fàcceel ba lépp lu ko ci war a dina ko leer bu baax a baax incha allah incha allahu taala jot jot boobu nag mënta am te jaaroo ci 78 123 06 56 wala nga ñëw fi nga xamante ni euh, Yoff Apexi 2 ci boori marathon mbedd mi jàkkaarloog mom marathon eh, mi ngi dugg jëm Nord Foire ci chat li rek danaka comme nima ma koy expliqué saa su ne euh, téléphone rek inshallah allah dana la jox rendez-vous te boo ñëwee ça a sa aajo dina faju mbiri rab buñ ko doon wax fi lañuy dem na ba ci école yi. dem na ci ba ci feneen ak feneen ak feneen. Euh, dem dem na ci sax ba ci ñi nga xamante ni ñooy ñaari way dencante te am njaboot. am euh, euh, sëy bi am njaboot am ci. mais jàmm mënut am ci sëy bi te fekk na booba rab moo koy waral des fois. wala loo dugg saa yoo duggee ci sëy gënaat ci tas. Mm. mais solution bi lan la sëñ Modou. ndax boo waxee ne nangam feebar sàngam feebar sàngam feebar sàngam day baax tamit nga ñëw indi solution mooy waral ki lay déglu xelam dal mm-hmm. ndax bu la déggee ngay tudd feebaram te waxoo solution bi daanaka moom la ngay wax du ko du ko amal benn njariñ kon solution bi mooy man ci jëmmi boppam bu ma ko xoolee ba xas xam na rab la moo xam nag rabu donn la mooy rabu famille mm-hmm. wala rab boo xam ne rek dafa daf lay yàqal te xëy na yow rek lay gàllankoor ci famille bi mm-hmm. bu boobaa bu ñu ko xoolee bëri na lu ma ciy liggéey ndax yaakaar naa ginaar googu noonu ma ciy faral di liggéey rek. ma lay wax. waaw daanaka rab lu sonal nit sonal nit sonal nit. soo ko xasee defal sequ tiir gi. daanaka boo ko xasee defal rek. maanaam da ngay gis ne bu doon cent pour cent la. Mhm. jàppal ne cinquante ya moom dem na ba pare. te loolu mooy li nga xam ne moom ngay njëkk defal nit ki rek. Mhm. ngir maanaam li nekk ci moom maanaam. maanaam yàq gi mu koy yàqal ak gàllankoor yi mën a dañ muy sequ tiir googu mm-hmm. léegi sax maa ngi ciy liggéeyaat beneen boo xam ne mm-hmm. maanaam moo gën a yomb ci nit ki koy def nit ki fu mu mën a nekk ci àdduna manees nag koo defaral jox ko lu muy suuroo la ñetti fan nga xam ne karaw boppam rek lay lay wat boole koog moom ci ñetti fan yi mu koy suuroo mais ñetti fan yooyu noonu faaw mu tëdd gént dara dikkal ko ne ko diw mu ne ko ah mu ne ko man demaa la doon yàqal bàyyi naa laa yàqal lu lu amul ma dem te ñëw li ma lay wax day doon lu leer loo xam ne du ma ne yaakaar naa wala foog naa. yow moom bi moo lay mhm. Mhm. la yàgg suivre. Mhm. yàgg la gis nga man ak man mii nga toogal. amatuñu lu ñuy laam-laamee. ci li ngay def ci li la yàlla may. waaye ak gi ndax koo jàkkaar loolu ba mënoo ci moom dara itam. danga naan carrément mënuma ci dara wala bàyyil sa lii ngay yóotu. jaru ko ndax loo ci jot. wallaay loolu moom xam naa ko bu wér ci yow. nga ne donc ñetti fan nga koy suuroo. waaw loolu maanaam Don na li gëna gaaw lo rap lum la sonal sonal sonal sonal sonal wallahi na azim bu la ko joxee ba nga dag sa karoog bopp ko ak mom ñetti guddii rek nga koy suuro soko ko ñetti guddii yoy ben fan bi man na nek ci ben fan bi man na nek ci ñaari fan man na nek ci ñetti fan bi faaw nga teud guddii am lu la ne la diiw nga ne ko ah, mu ne la mala doon yàqal la ma ngi dem wala paré na ci yow la lu lu lu lu lu leer la waaw day fekk maanaam day fekk maanaam nga xam ne kii rab a koy yàqal loolu dafay dox rek ci koo xam ne rab moo koy yàqal. loolu ci loolu rek lay dox du doxut ci leneen. rab mën naa teg nit jàngoro. waa rab gis koo exemple lay joxe ah. mhm. ay bëtam dafa muur. Mhm. ñu ne kii rab di ko yàqal ba def ñuy waaw rab dana teg nit ay gàllankoor bu baax a baax a baax nekkul ne rek day doon loo xam ne yaa ngi sentir ne rab la parce que ku ñëw. dem nga ne kon rab la déedéet am na yoo xam ne da nga koy dund mu doon loo xam ne lu la dal nit ñi xam ko te fekk rabala ko sa sababal maanaam muy benn muy benn maanaam tey nit ki mën nay tuur ndox xam nga loolu lu nit ki di def la

guddi gi mën na sa am jëkkër wala mu am jabar di ko def loolu rab benn mën nag koo teg mm-hmm. beneen bi tamit mën nga gis nit koo xam ne dafay jékki-jékki maanaam biir bi neew yi mm-hmm. maanaam nga jàpp ne feebar la wala dara fekk rab moo koy moo koy moo koy wal maanaam moo koy wal nga xam ne bu demoon hôpital mën nañ ko xool ne ko ñun gisuñ dara ci sa biir mais rab moo koy wal ak borom rab moo koy wal ba biir bi di neew yi mhm. te pourtant dara nekkul ci biir bi bu demee hôpital duñ gis dara benn beneen bi tamit di nga gis koo xam ne day ëmb man yenn saa yi nit dina ñëw ci man di ma xoolloo ab ëmbam ma xool ëmb bi ne ko ba keroog ngay am doom ëmb bi mën na continuer mën na yàqu mhm. ba tàyyi nga xam ne dama naan la ëmb bi daal li ma la mën a xamal mooy ëmb rab la man nga dem ba am doom waaye man nga dem ba ci dernier moment ëmb bi yàqu bëri na ci ñoo xam ne dama leen koy wax ñu dem ba benn moment ñu woowaat la wala ñu ñëw ne la sama ëmb ba dafa mujj yàq ma ne la ah, man de waxoon naa la ndax wax dëgg yaa am loolu laa gisoon. macha allah nga xam ne bëri na kon yoo xam ne rab dina ko teg nit lu bokk teg rek ngay sentir. Mhm. yu baree bari xam ne ay gàllankoor la rab la ko teg waaye di am loo xam ne looy looy gis lay doon. nga xam ne lii raba la ko teg. solution nga xam ne solution bi mu ngi fi ndax loolu ma la wax noonu bokk na ci li nga xam ne soo ko defee gën na yomb te gën na gaaw maanaam rab noppal la ci bàyyi laa yàqal waaye ñu xam ne rab tamit dafay ànd ak ay ay sarax yu muy bëgg. Mm-hmm. ndax rab lu ñuy neexal la kenn du ko dóor kenn du ko saaga kenn du ko dind ci nit. Mm-hmm. mais lu ñuy neexal la. neexal gi mooy xam li mu bëgg nga koy def dana dem ba ruus laa yàqal dootu la yàqalati. d'accord yaakaar naa ne temps bi jeex na tàkk ñàkkul loo xamante ne Modou bëgg na ko ci doli mais pour rappel rek euh, le numéro c'est le 78 123 06 56 mi ngi yof apex 2 ci bori marathon boko ko ci numéro bi rek tabaarkàlla macha allah dana la indiquer ba fi nga xamantene mom moy kërëm lan ngay jeexalee cheikh bi waaw limay may dal moy xamna né euh walum rab mom bu doon nit ñi fukki nit ñoo nek ci aduna bi jappel na juroom ñatt yépp wala juroom ñent yépp mooy seen première li leen yàqal première ndax rab li mën a yàqal ci ci ci doomu aadama dafa bari lool lool lool waaye daal di wax ne képp koo xam ne yàlla dogal na sëñ Modou li muy wax kër la nga gis ci sa bopp te gëm ko ginnaaw yàlla ubbil naa la samay porte boo ñëwee lépp lu ma ci man dinaa ko def te yàlla tax di wax ne waaw déedéet déedéet di wax ne daal sëñ Modou moom dafay nekk rek ngir lim xam di ko jëfandikoo di ko jariñ di ko jariñ bokk ak doomu aadama yi mm-hmm. tëjaluma kenn samay porte di wax ne daal in uridu ilal islaaha mastataatum wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa aleykum assalaam wa rahmatullahi taala wa koy jaajëfal bu baax a baax cant ak ngërëm ñeel ko waaye tabarkàlla macha allah jarul sax muy wax ndax nag xëy na ubbil naa nit ñi samay bunt loolu mooy doon ay kàddoom waaye nañ ñëw ba jéem a découvrir li nga xamante nii moom la yor ciy bagage yaakaar naa ni loolu jaratul ma ciy wax ndax mbokk yépp firndeel nañu ko te mi ngi bëgg yàgg nag ànd baa ngi bëgg yàgg te nit ñi am nañ fulla gu toll ni bu ñu gisul lu ñu xam dañuy daal di jël numéro soxna Mbaye ne ko eh waxal ak diw waaye wóor na yàlla wóor yonent bi jaraluma sama bàmmeel déggaguma ko te yàlla bu ma ko dégg ndax seen njariñ mooy sunu yitte loolu tax ñu indil leen seen émission leeral njariñ ci biir seen euh, politique 221 di gërëm bu baax a baax sama technicien gërëm leen yéen ñi àndoon ak ñun rab wax ci benn émission ñaar ba ñett du ci doy dinañ ci dellu siwaat incha allahu taala beneen yoon ci kàttanu yàlla ak mbaaxam mbokk yi jàmm ak jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jaa ngeen jëf